Ousmane Sonko peut-être que il faut ñu xool d'abord euh, euh, lan moo ko waral parce qu'en vérité euh, lenn boo ko bëggee faj peut-être il xool cause bi te pour nga xam cause bi tax Ousmane Sonko nekk ci di di nga am tuuti di nga am tuuti effort intellectuel pour nekk à sa place lu tax mu toll fii bay def lii boo defee effort boobu di nga gis ne boo jàppee ne boo jàppee ne moom Ousmane Sonko dafa nekk victime injustice bu mag a mag parce que gis naa plateau yu bari naan lu ko lu ko moom moo teg boppam affaire yi parce que moo dem Sweet Beauté. vous n'êtes pas d'accord non cest à que il faut analyse boo koy def da ngay am euh, angle angle bii nag da nga naan Ousmane Sonko lan moo nekk ci boppam te boo jàppee ne moom jàpp na ne violé wul deful menace de mort. et que dañ ko ko jiiñ pour toroxal ko te bañ ko ko jiiñee ba léegi dañ koy persécuter persécution yi wax nañ ko waxaat ko am nay forme multiple mu jéem a résister persécution yi ak injustice ko teg mu résister résister résister ba sonn xëy na ñu képp ko amatul moyen beneen mu nekk situation boobu bu nekk situation bu grève de la faim moyen de contestation la de résistance pacifique maanaam pratiquement euh, dernier recours lay doon parce que lu métti la lu métti la grève la faim il faut nga am euh, pas-pas am courage pour def ko donc boo demee ba dugg ci c'est parce que ñàkk pexe dëgg dëgg dëgg la te histoire ni ñu ko wanee boo gisee ñoom Gandé ñi nga xam ne ñoom Bobby Sands ak ñëw ñi nga xam ne def nañ grève la faim yëpp dañoo dem ba sës amatuñu beneen jumtuwaay budul loolu donc boo jàppee ne loolu foofu la toll tey boo bëggee moom solution da koy xool moom ak discours am parce que discours am mooy lan mooy que moom peuple bi à part yàlla ak yonent bi peuple bi la dénk boppam donc peuple bi peut-être moom kese mu nekk nii mu laa yaakaar ne moo mun am solution ci moom parce que ñun wax nañu gis nañ lettre boo xam ne. Alioune Tine peuple gis nañ xam nga ñun ci peuple lañ bokk. waaw mais benn nañ lettre bataaxal boo xam ne société civile ak parti politique ñu bari signé ko. Mhm. gis nañ ay lettres yu bari gis nañ ay ñu bari wax nañu te ba léegi bàyyiwul bu fekkee bàyyiwul te ñoo ñëpp wax nañ ñi ay xaritam lañ ñi ay àndaloonam ñii ñoo bokk parti ñu bari wax nañ te mënul bàyyi li koy def parce que jàpp na ne ñàkk na pexe ñàkk pexe boo xam ne lii rek peut-être moo ko dese. moyen de résistance pacifique peuple bi puisque moom nee na peuple la dégg boppam peuple bi rek moo ko mën a génne ci li nekk wala bokk gouvernement bi nga xam ne moo ko teg parce que fekkee ne moom dem na ba yaakaar ne amul beneen issue loolu te gouvernement bi moo ko ëpp doole teg ko ko gouvernement bi moo ko tekki teggi pour yow c'est la seule issue. non y a pour résistance ou bien deux issues ñoo ci am. d'accord mooy gouvernement bi xam ne li mu def. xëy na mën naa am ay jeexital yoo xam ne moom munu ko mesurer parce que en vérité bu demee woon benn li nga xam ne xëy na kenn bëgg ko am mais mën na nekk martir boo xam ne dina indi ci réew mi ay conséquences yoo xam ne kenn munu ko calculer parce que ñi nga xam ne jàpp ne martyr la peut-être que ñi ñi ko naan Ousmane Sonko bu sell bi et cetera mais mën nañ fi jaa daanu yasir daanu yoo xam ne bon seen euh, mëbët ak fa ñu jëm. dina indi ay gàllankoor yu bare bare ci réew donc bu gouvernement bi xamee conséquences ci ñu topp conséquences yu topp ci image bi mu yàq ci Sénégal mu teggi ko kooku issue la beneen bi nag mooy population population peuple bi moom naka lañ ko mën a jàppale naka lañ ko mën a jàppale xam nga peuple yëpp bu ñu taxaw di wax c'est ça c'est presque impossible bu fekkoon ne mën na am ñu def seen euh, def euh, ay rassemblement yu mag mag laaj ko xëy na mais li peuple def peut mooy jàppale ko ci xeexam bi wane ni ñoom d'accord ñu ci ñu jàpp ko bu ñu mobiliser woo wax état bi nañ bàyyi xëy na bu boobaa état bàyyi donc man solution yàlla laa gis parce que ñi ma gis ñi ma xam ñu wax ñu jege ko yépp wax nañu soof ñi peut-être ñi nga xam ne wax nañ ci suuf dañu dégguma ay sëriñ yooyu xëy na xamuñu ci mais ñun société civile parti politique yi ñépp wax nañ li ñu li ñu bëgg li ñu ci mën wax nañ ko ci mu ne moom du bàyyi parce que solution ultime boobu moo ko dese ndax injustice mag duñ ko teg bu boobaa nag puisque moom nee na dénk na euh, boppam peuple bi peuple bi moo ko ci man a génne wala gouvernement bi nga xam ne moo ko teg ci li mu nekk mu tegee